déclaration de politique générale. Mhm. vous suivez le débat. Ousmane Sonko nee na nañu revoir le règlement intérieur de l'Assemblée bi nga xam ne ba ñu dellu si waatee le poste de premier ministre euh, prendre ñu ko en compte euh, dans le règlement intérieur à défaut moom du ñëw def li nga xam ne moom mooy sa déclaration de politique générale dina dem devant un jury populaire président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions euh, jël na si position euh, tout en soutenant euh, son premier ministre ñaax na député yi ñu réformer le règlement intérieur ba intégrer la partie concernant le premier ministre loolu mën na tere def premier ministre def DPG. waaw parce que xam nga dafa amoon dans le règlement intérieur ay dispositions. Euh, defe naa ne article 97 98 la disposition yu yu yu prévoir woon modalité modalité yi nga xam ne noonu la euh, premier ministre war a defee euh, déclaration de politique générale prévoir sax ne que dans les trois mois qui suivent sa sa désignation d'installation si la au bout de trois mois ah ci la war a def sa déclaration de de de générale te déclaration boobu bu ko defee tamit mën na am par la suite motion de censure day fay engager responsabilité loolu yëpp c'est dañ ko ci dañ ko prévoir bi bi bi président Macky Sall dindi premier ministre dañu dindi waale woon yooyu yëpp dindi article cinquante cinq bi li nekk léegi article cinquante cinq ñu dindi ko dindi waale les dispositions euh, réglementaires loolu mooy lu normal mais bi bi mu indiwaatee euh, premier ministre dama jàpp ne waa assemblée nationale dañu fàtte. dugalaat ko dugalaat les articles quatre vingt dix qui est grave. les articles quatre-vingt-dix-sept et quatre-vingt-dix-huit biñ biñ ko dugalee euh, je crois que en deux mille vingt-deux kii euh, le le honor honorable kii moom Lamine Diallo bind na président assemblée nationale mu ne ko ah. ñu ngi ci dans une situation illégale nañu dugalaat euh, disposition yooyu pour méngale euh, article cinquante cinq ak le règlement intérieur ba président assemblée nationale bi tontu ko nekkoon ñu ngi dinañ ko xool et cetera après defaatuñu dara ba euh, kii ñëw. nu mu tuddati la le ministre Amadou Ba war a ñëw def sa déclaration de politique Euh, général il paraît que dafa am ñi nga xam ne dañu dañu dugalaat yooyu disposition joxewaat euh, un règlement intérieur ba nga xam ne jaarale wuñ ko fu ñu ko waroon jaar maanaam dañ ko waroon a adopté parce que c'est une loi organique situation boobu la ce qui fait que li ñuy dugal ñooñu li ñuy dugal c'est nul et non avenu. Hmm. c'est nul et non avenu comme ça. premier ministre bu dem foofu tamit dina fa dina fa taxaw te du am la base légale qui lui permet mu taxaw foofu donc parce que le premier ministre dans le règlement intérieur n'existe pas comment le premier ministre premier ministre naka lay mën a demee ci ci kanamu assemblée nationale que effacé nañ ko. nekkatul ci règlement intérieur bien que mu ngi ci mu ngi ci constitution bi parce que la constitution. constitution bi nee na war na def déclarer. kooku war la obligation la constitution bi est au dessus de la. des elle est au mais mais dañ koy dafay am modalité d' application modalité d' application bi ma am. dafa mel ni nga am nga gis nga gis benn oto mu taxaw nga ne lii oto la nga dugg ci oto bi fekk amul moteur. loolu la. voilà mais est-ce que fekk amul oto la mais amul moteur donc du daw. mais c'est la même chose ici. ba ba ban base légale la la déclaration de politique générale devant un, un jury populaire de di am. ça n'a aucune base légale mënul nekk déclaration de politique. mais loolu daf koy wax noonu rek c'est une déclaration c'était la politique c'était une, une, une déclaration une, une sorte de provocation politique. mais est-ce qu'il est-ce qu'il viole la loi bu deful déclaration de politique générale. ah oui ah oui. ci biir législature bi foog mu def déclaration de politique générale am ci biir législature bi foog foog mu def ko seulement il n'a aucun la la la impose aucun délai pour le fair donc bu ko neexee mën na ko def léegi bu euh, euh, député yi bu ñu député yu euh, régulariser wul situation bi bu ko neexee mën na ko def léegi bu ko neexee mën na xaar ba déwén mu def ko. lool mooy loolu mooy situation moo tax ñun bi ñuy def suñu médiation ñu ñaan leen ñu régulariser. ñoom nangu nañu. ah c'est-à-dire xam nga ñoom dañu dañu da da ah, li leen merloo. Mhm. député opposition bi enfin la nouvelle opposition li leen merloo mooy li ci de euh, réponse bi euh, premier ministre bi def lim ci yokk. déclaration bi mu ne bi mu ne daf koy def devant un jury populaire loolu nag moo leen merloo moo merloo euh, euh, waa Benno Bokk Yaakaar ba ñu redire ci seen position. bu yemoon bu yemoon foofu bu bu bu président premier ministre bi yemoon ci nag ne du ma ñëw tanque que modifié wu leen looloon doon na gën a yombal ñun suñu médiation parce que commencé woon nañu médiation. ba commencé waxtaan ak gaa ñi après ci diggante bi la la lettre boobu agsi gaa ñi bi ñu ko gisee nag gën a. et la la la décision et puis la réponse bi président Diomaye joxe à ce sujet aussi euh, gën na braquer les le les députés parce qu'ils semblent leur nier une légitimité euh, populaire alors que ni ñu ko falee suffrage universel noon la ñu falee le députés au suffrage universel. si ma dégg de dafa leen ne déclaration politique rek la def. ci li ma dégg si. li wax ko dafa ne déclaration politique la def waaye ñaan naa ko mu teg loolu ci suuf. te nangul na ma ko nangul na ma ko. je crois que foofu def na une bonne une bon médiation il a il a il a réglé le problème peut-être peut-être que mënoon na. Euh, il a ajouté son grain de sel en, en politique parce que moom tam c'est un politique en en en disant. ci cachet républicain bi en en disant que def de de c'est une politique la déclaration politique la def. mais député yi di menacer Benno dans de de faire sauter la clause de de dissolution euh, bi président de la République am nag. waaw mais bu ñu ko defee. Euh, de toute façon il faudra que ça passe par euh, le président de la République. mais bu ko promulgué wul au bout de six jours as président assemblée promulgué ko. mais président de la <laughs> république mën na mën na mën na mën na saisir le conseil constitutionnel. pour mu kase ko. waaw mën na saisir le conseil. bu conseil bañee nag bu conseil bañee intervenir nag déclaré wu incompétent. on verra <laughs> est-ce que duñu dem. vers mënuma mënuma mënuma. est-ce que duñu dem vers je ne veux pas préjuger mais président. mën na mën na organiser un référendum. pour revenir sur cette disposition là. Absolument. alors dernier non, il n'est pas parce que je ne pense pas que. gars yi dem ba foofu. waaw gars yi dinañ dem ba foofu je ne pense pas.